juróom fukk ak juróom-ñeenti ndaw dugg ci gaal gi lu toll ci fukki fan ak juróom-ñaar boobu kenn gisu leen indi njàqare ca diwaanu golf waajur ya jamono ji tiis nag moo nekk seen xar kanam. fukki fan ak juróom-ñaar taluñu lekk taluñu naan taluñu nelaw ba yaandoo xam nga sa njaboot bu nekkee ci loo xam ne xamoo ci lan la ne ah doo am jàmm doo am salaam boo amalul la gënal xëy na la leen tax a jog ah ba tax ñu dem yàlla dimbali leen ba ñu àgg ci jàmm ak salaam. mais bu ñu ànd am bu fekkee amuñu sax nañu àgg ci jàmm ak salaam bi. lu ci ëpp ci ñoom nekk ay ndaw buñ sukkandikoo nag ci ñenn waajur yi dara waralu ko lu dul géej nga xam ne jamono ji dafa ñàkkub jën. kon bu ndee ba jël seen matériel aj ka si kaw dem daan seen doole tàgguwunu yaay tàgguwunu baay bëgg a soxla rek bëgg faj soxla seen baay ak seen i yaay ak seen i jabar kese moo leen tax a dem loolu rek moo leen fi tax a jóge ndax ñu ngi yor seen gaal yor seen i machine waaw di dem ak ñëw nag mënuñoo am dara xam naa loolu moo tax rek ñu forcé dem ñu wallaay da ngay dem ba ñëw doo am dara ndax boo jëkkoon jën ni mu amee woon wax dëgg yàlla boo ñëwee suturlu ma mën a denc boo liggéey faj say soxla léegi sa soxla day taxaw doo ko mën a faj. li ñuy sàkku nag jamono ji mooy gouvernement bu Sénégal mu dimbali leen ci seet gi ndax nag boobu ba léegi mi ngi bëgg a yàgg te gisuñu seen doom yooyu. lu ñu xam daal dañ ko def métti nañu tiis na parce que lu ñu xam dañ ko fu nekk woote nañ ko téléphone ay Espagne ay Maroc woote nañ te fu ñu loolu daal mooy li ñu gën a tiis daal. daal nguur gi mën nañoo jàppale hélico bi mën ko dem seeti ak marine bi hélico ak marine bi daal ñoo mën a dem pour seeti leen fekkee ne ñoom dañ nekk zone de Sénégal. bu leen seetee dina leen gis rapidement bu ko ñoom ñu mën see génn. coowal immigration clandestine di wéyandi ci diwaanu Sénégal rawatina nag ci biir Mbour ca diwaanu tefes ak golf jamono ji waajur yi njàqare lañ def gannaaw nag ay fan gis ñu yile seeni doom dugg ci géej gi te xamuñu ci luñ nekk.